Heavyweight.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 metti ba noppi yóbbu folu lu toll ci juróomi million ëppatalaw gaa yi jogati nañ de mbir mi nag mu ngi xew guddi àllarba bi weesu ma ne guddi googu la fa samba boo yi ñëw ci restaurant bu ñu naan mer west lourdement armé nag ma ne gaa yi yor nañu ay pistolet yor ay jaasi semé fa terreur jëfi terrorisme dëgg laa wax xandi ci vigile bi la ñu tàmbalee jàpp ko dóor ko ay jaasi ba tuuse ko ci ay parti intimam ëskay ñu naan deetawaay ñu xuus sugg ci biir appartement couple chinois bi moom restaurant bi kenn seeni arme tiimale leen ko mbette film menacé leen ne leen nañu génnee xaalis bi nekk ci coffre fort bi ci noonu la jàppee loxo jabaru chinois bi cor ko jaasi ay waay ay di koy daane ci kanamu borom këram tëral ko ñu naan deetawaay ñu jël paaka dawal ci baat bi illallah xanaa kayitu ay sénégalais ñooy def lii bi ñu defee loolu jabar ji ba noppi nag samba booy ci jëkkër ji la ñu jubal daa di koy dóor ay coups yu metti ci kanam gi soog a jubali ci coffre foor bi ne tungaan juróomi millions yi fa nekkoon waay xaalis jar na lii élément dig yi nag teg nañu loxo benn agresseur bi waaw góore waay jabaru chinois biñ doon rendi fi mu ne ma nga ca cay mim réew moo tax ma ne réew mi ba léegi léegi li ma waxoon rek réew mi daal buñ fi jàppoon ab agresseur bu faat nit yóbbu ko ca stade fusillé ko publiquement ma ne kon léegi mbir mi jeex laa wax waaye réew mi ngay gis ku ray nit ba noppi tay ko am ñuy jog di ko défendre moo tax nooxoor yi continuer di faat rek moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca gosaas doy na waar ab sàmmkat la fa ay baykat jàpp taa di koy faat waay bul ma waxati li mbir mi nang mu ngi ngi xewee ca dëkk bu ñu naan mbaar di ab commune bu nekk ci département bu gosaas yu mel ni nag yàgg naa am ci diggante baykat yi ak sàmmkat yi surtout ci période bi nga xam ni ci la ñuy jeexal liggéeyu tool yi ki ci ñàkk bakkanam mu ngi tudd Moussa ñu ko doon woowee Daouda ay kub kub la ko baykat yi dóor ba mu jaare fa ñakk bakkanam na lillahi wa inna ilayhi rajiun baykat ñu jiñ ñañoo nee nañu Moussa ka alias Daouda bi nga xam ni mooy sàmmkat bi moo bàyyi ay juram dugg ci seeni tool ci noonu ñu bëgg koo filmer moom ak ay juram pour am ay preuve waaye Moussa Ka sàmmkat bi weddi ne du moom lank ne du moom moo seetaan ay juram dugg ci toolu baykat yi ci la coow li nag tàmbale ba mujj ci ab xeexoo ci li ñu wax nag ñoom baykat yi nee nañ Moussa ci xeexoo bi ci la génne ab jaaseem daa di gor baykat yi di benn benn étudiant ak baayam pop pop pop téeréer ci la baykat yi raage ak moom taa di nangu arme bi mu yoroon mujj ko cee faat ilaha illallah ne ay ku yu bari lañ ko dóor jëfi barbar yooyu nag tax ba kii di Moussa Ka alias Daouda ñàkk bakkanam baykat yi blessé ci ma mu ngi bëgg a bari nag baykat yi nag bi ñu defee loolu dañoo tiit daw bàyyi fa seen ñeenti saret ak ay mbaam ëskëy ëskëy këy bakkan dafa for gendarmerie fi mu ne teg nañ loxo étudiant bi ak baayam yóbbu leen ci hôpital bu Matlabul Fawzayni ca Touba ne ñu nag gannaaw ba ñu leen fajee ba noppi te feere nañu leen ca tribunal bu Fatick moo tax xeex baaxul te fitna kenn du ko yee ndax kenn xamul lu muy indi moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Touba jéggi na dayoo ab xale bu góor at yi toll ci fukki at juróom ñaar di ab élève en nekk troisième nee gone googu daal ma fa doon harcelé ay jigéen bayoon yoon teg ko loxo waaw góore waay gone gi ab compte whatsapp am la créé woon li mu tuddee woon boppam moom ñemewuma ko tudd mane xale bi day envoyé ay vidéo no ak ay ojo di demandé jigéen ñi ngir ñu tëdd ak moom wëpp la gone gi nag daa mujj dal ci laalaakee ndax bi mu dalee ci soxna si di kàccaam di ab jigéen bu am borom kër ma ne waaye ci la feeñee laa wax ndax daf ko doon def ni doon def jigéen ñi di ko envoyé ay audio ak ay vidéo porno ci la kàccam jëlee preuve yi taa di koy yóbbul yoon ma ne fu lay jaay Dakar waay ba fi mu ne teg nañ ko loxo mi ngi ca commissariat bu ndaamaatu di ko yoon tegee loxo nag gone gi ci boppam nangu na ne moo doon def jëf ju salte ju ñaaw jooju ma teg ci nag ne ab xale di ans di envoyé ay jigéen ay vidéo porno ak ay audio ma ne xale boobu bu màggee réew mi toj man de xawma yan xale yi jigéen ñoo bokk ak moom classe waaye gone gi fu mu nekk dana ko toj réew mi li fi nekk kenn mënu koo wax mu dooneen seen xibaaru buzz dig daje samdi ci yeneen xibaaru buzz